jërë ngeen jëf mbokki internet yi dalati leen ak jàmm ba tey la sey gën a fes ñu ne rek ndax conseil constitutionnel ndax mën na si boobale dogal dara ndax dina ko tasam du ko tas ginnaaw rek parce que watee rek procès de loi foofee sa assemblée nationale toxal la nga xamante ne si ne moo di élection yi le 15 décembre ñu war ko sa amal ba tax na rek ñooñu di ay candidat àndunu sa ñoom def ab rek reket foofee rek sa conseil constitutionnel di wax rek ñu daal di annuler la nga xamante ne si ne moo di boobale date ñu amal nag élection yi si date bi nga xamante ne si ne moom la ko jàppoon ñu daal ko say maintenir ba tax ñoom ñu génn non sax di def seen conférence de presse di sa xamle ne ñoom daal ba fi toll nii rek élection dafay am si date bi nga xamante moom ko jàppoon dañuy continuer seen i campagne électorale jëm si élection ñu dëgmal 2024 njiitum réew mi moom ba tey fa mu jàppoon rek fa la jàpp fa mu ngoyoon rek ba tey fa la ngoy ab dialogue lay woote ab dialogue national moom lay woote ba pare rek ñu daal waxtaan li li élection ba ko sa organiser le 15 décembre nga rek ensemble national daas nag say ah, wax ndax loole askan wi da ko nangu wala des ko nangu ak lu si maanaam ñooñee di candidat ñoom ba tey fi ñu toll nii nanguwul loolee benn yoon ndax jàpp na ne kooke di njiitum réew mi dafa war a rek li nga xamante ne si moo di calendrier bi comme naka France waxee États-Unis wax ko ak ñeneen i mbootaay yu xamante ne si ne rek àdd nañ si loolee na rek na njiitum réew mi organiser ay élection ni mu ah, gën a ah, ndax loolee mën na na mooy indi ak stabilité si réew mi kon nag ñu say sàkku mu organiser nu mu gën a gaawe moom kookee di njiitum réewum Sénégal ginnaaw ba nga xamante ne seen rek jamono ji ay élection 25 février bi ñu waxoon salayam boobu muy tuule du saam 15 décembre ba nu sàkk rek moom lay wax waaye nag ñooñee di ay